بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قال في كتابه وبالوالدين إحسانا والصلاة والسلام على من أبعث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله wa ala alihi wa ashaabihi wa ridallahi alxaalit an jamii almuminin walmuminat mbokk yi ñu ngi leen di ziyaara eh, di leen baalu ak di ñaan li ñu fi tax a daje yàlla fulanil fulal ko mu nekk ay yiw yu baree bari ñu bokk ko ñun ñépp ah di wax na rek delloosiwaat nañ fii seen émission al mizan ah fas yéene waxtaanee tey birrul waalidayni mbaax jëmale ci sa ñaari waajur ah ci sa ñaari waajur moom lañuy ñu fas jàng wala jàngale wala waxtaanee tey ndax yàlla sunu borom sax ma wax ne wa bil waalidayni ixsaanan ah nee na seen ñaari jur na ngeen rafetal jëmale si ñoom waaw ndax rafetal yi ngeen rafetal jëmale si ñoom ak yokkute la si doom ji waaw ak màgg la ci doom ji kon nga xam ne waajur loo ko jëndee rek jar na ko ndax boo xoolee coono yi mu paase yëpp ndax yow lu nekk waroon ko cee dal bakkenam musiba yeeg lépp ngir dal protéger la waye ngal la bo boo màggee ba mënal sa bop yow nag wëlbatikul nga protéger ko wëlbatikul nga muñal ko ndax ba ngay nekk xalé mo la muñal won muñal la tour ndox muñal la takal yi ngay don takal muñal la muñal la muñal la muñal la ba nga mag nak mënal sa bopp nga manal ko moy nga protéger ko nokoy protéger moy nga fexé ba dara du ko metti dund si aduna lu lu metti mënta ñàkk waaye nag nga dimbali ko waaw ah. donte ne warut a sonn donte ne képp kuy dund si àdduna danga war a sonn waaye nga fexe ba coonam wàññeeku si noonu koy protéger dégg kon yooyu moo tax yàlla di wax waaw ah. mooy mais nag waaye jur kenn du ko jaamu na leer yàlla waxuñu jaamu ko daf ne ñu rafetal jëmale ci ñoom. te xeetu rafetali nag bari na waaye waxuñu ñu jaamu leen ndax nit du jaamu nit ah, dangay rafetal jëmale ci morooma si si si moom dégg moo tax mu ne ñu ne waaye jur kenn di ko jaamu ndax yàlla sunu borom dafa wax ne maanaam fexe leen wala bi ma paree si yéen lenn rek moo war sama diggante ak yéen mooy ngeen jaamu ma jaamu gi nag wala boog la majeure partie xam nañ ñuy jaamu suñu borom mooy nañ ko jaamu si moom ni mu ko bëggee te bañ ko jaamu su ñun niñ ko bëggee ndax buñ ko jaamoo su niñ ko bëggee rek jaamu gi am amaana du du dem waaye buñ ko jaamoo si moom ni mu ko bëggee même bu bu bu bu bu rafetul sax wala bu bu bu xawee. ñaaw sax wala bu xawee mën na koo nangu parce que ñun si moom lañu xaj waaye moom xajul si ñun waaw dégg-dégg na laaj nag dégg ndax wabil waalidayni ixsaanan ñëw na ci aaya ba lépp lu ñu am si xeetu mbaax nañ ko jox suñuy waajur nañu del nañ ko delloo suñuy waajur ndax ñaanu waajur nag lu jar a bàyyi xel la gis nga bari na ku naan la man de dama tëju wala affaire yi dafa dëgër wala dafa metti laaj ko nu muy dundee ak ay waajuram rek bi laaj ko muy dundee ak ay waajuram kon nag Wolof Njaay moo wax ne maanaam doom yi ñu ngi yarawante si ñaari waajur yi parce que ku nekk rek ak na nga toppatoo sa ñaari waajur wala ku nekk sa sa waajur na mu sëy woon rek wala na mu nekk woon ci sëy ba loolooy judd loolay am moo tax lu ñu mën si tànn ay soxna ngir ëllëg suñuy doom mën a bokk suñuy raw si seeni maas nañu ko def ndax buñ ko defulee rek am àq amal leen àq buñ ko defulee amal suñuy doom àq te bu boobaa àq nag fay rekk dégg kon la fala wala taqul lahuma uf olof njaay di wax ni mbës mooy mbës bu leen bu leen wax waaye déet sànni loxo waaye nàngam waaye nàngam déedéet yàlla nee na ku ko def rek alku sa waajur li muy représenté ci yow saa boo waxee rek sànni loxo yow balaa nga gën kontaan di wax ak sa waajur sànni loxo loolu musiba la mbokk mi yow mi koy def xoolal sa adduna ndax mu ngi jàkk wala jàkkul xoolal nax yaa ngi avancé wala avancé woo yow mi def saabu bu sa waajur waxee yow balaa nga gën a mën a kontaan walla balaa sa xol di gën a mën a euh, naat nga sànni sa loxo waajur xoolal nax yaa ngi avancé say moroom dañ lay raw rek waaye yow moom ginnaaw rek dégg mu ne lan wala tanharhuma buñ leen doyadil am sa wajur bëggoo sax mu fe mu génn si biti wala boo amee ay gan sax bëggoo ñu bëggoo bëggoo say waay bëggoo leen présenter say wajur ndax lan sama wajur nii la mel wala wala wala wala ah amul amul njariñ ndax moom si kàttanu yàlla si moom la la yàlla ba nga ñew si Aduna. kon ak lu mënta xew ci kaw suuf sagal ko delo ko sag bi donte ne yalla la waye delo ko sag bi ndax ku dul sant ni do sant suñu borom kon delo ko sag bi ndax moom la bu dul mu ñaaw deng kon sante santal yalla suñu borom sante ko yalla suñu borom deng mu ne nak, wa qul lahuma qawlan kariman nga wax ak mom wax ju mag ju tedd ju ju ju ju ju nit mën a dégg xam nga euh, musa bi ko yàlla yóbbu di yóbbu ci Firawna def ne ko waqul lahuma wala waxal ak moom wax ju ju ju ju tey ju dal ju nit mën a dégg parce que lu mu bon man Firawna yar na Moussa am na lu mu def lu bari ci àdduna comme yàlla may wax ak Moussa ci bi mu ko yónnee ci na kon nag yow mi sa sa yow mi yàlla di waxal ci sa diggante sa waajur nan nga war a mel ci diggante boobu kon waajur bi nanu ko jox cër waajur bi nanu ko bàyyi xel ci li ñu yàlla wërsëgale buñ ko defee rek sutura yàlla mën nañoo def si dégg kon mu ne waat lan waxfid lahuma janaaxa zulli min arrahma yàlla baax ndax wax ji ku baax rek moo ko man la mu ne wutal laafu yërmande nga muuree leen ko yàlla nee na wutal laafu yërmande nga muuree ko say ñaari waajur yërëm leen waaye am ay waajur boo leen gisee rek sox comme si que dañ laa reyal sa taaw wala dafa am lu ñu la def ak lu la waajur mën a def defee ci kaw suuf laa wax ak nu mu mën a toll nag laa wax ci kaw suuf xoolee ko àqu njuréel ba ndax loolu dërëg na ko rëy effort yi mu daan def bi ngay nekk xale kon lan moo fi metti ndax bu dee metti rek moom moo gën a metti kon na ko ko muñal ndax yàllaa ko dogal la am dégg ma ne bu may dégg ñaan ku ku ma déggee ku naan sama waajur bi dafa bon wala lim ma def oh yow nak liñ ko def yow liñ ko def tok na guddii joy nak kan nak yow tok na guddii yëngal bop nak kan nak yow wa yow liñ ko def nak kon nak waqul rabbi irhamhuma kama rabbayani sa'ir waaye del tok sax nga ay yalla yërëmal ma leen comme niñ ma yërëmee woon ba may nekk ndax toll woon naa ay jamono lu nekk laa leen laa leen laa leen daan teg si mettit ñëpp dañ daan nelaw may jooy xañ leen seeni nelaw ñu nekk ci mettit yooyu te ku nekk xam na nelaw ni mu mel ci guddi nit ku war a nelaw guddi wala gëmmant war a nelaw nelawoo beneen affaire la dégg kon nañu muñal waajur yi ndax nag toll woon nañ fu ñu muñalee ñoom dañoo toll fu ñu leen war a muñalee nañ leen muñal ak lu mën a xew na ci kaw suuf laa wax dégg Abdourahman ibn ibn Abdourahman ibn Abdullah ibn Mas'ud dafa wax ne dafa laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ayul ayul amal wala ayu amalin ahabu ila allahi taala ana ban jëf la yàlla suñu borom gën a bëgg mu nekk assalaatu fi waxtiha mu ne ko julli ci waxtoom mel ni mel ni mel ni mel ni Omar rek waxtu julli jot tiva nga nekk sa portable wala tiva nga nekk si yeneen yi nga xam ne boo ñu la laajee lii lan la doo ko mën a justifier farata la du farata dégg kon yàlla nee na wala yéen sa saa salaam neen jëf ji yàlla gën a bëgg ci kaw suuf mooy julli ci waxtoom dégg mu nekk ak lan mu nekk birrul waalidayni allah mu ne ko mbaax jëmale ci sa ñaari waajur moo tax arab dafay wax ne sax wa minal birri an tasillal walad wudd abihi mu ne bokk na si mbaax jëmale si ñaari waajur yi ba léegi mooy li fi bàyyi bàyyi ci ay xameel nee na nga baax jëmale ci ñoom nee na loolu sax bokk na ci minal birri an tasillal walad wudd abihi nee na bokk na ci mooy bokk na ci birrul walidayn dégg kon lu mën a xew rek nañu jox waajur yi seen cër nañu rafetal beneen mooy. al jihaadu fi sabilillah mooy nag tegu ci yoonu yàlla nag fexe reyante sa nafsu fexe lépp luy xajamal sa nafsu ci wàllu diine rek nga ko lépp luy jëm na kanam rek nga def ko nee na boobooy troisième bi waaye damay xeexal diine damay waxal diine damay defal diine fekk na waajur ba nga bàyyi kër ga <laughs> na nga war a sa diggante ngoon defoo ko bële du la jariñ mukk ndax kenn mënul tëb première dem dem deuxième dégg moo tax Amar ibn al-As wax ne wala Abdullah ibn Amar ibn al-As wax ne dafa am benn ndaw bu ñëwoon si yonente bi sallallahu alayhi mu bàyyi ko mu dem si jihaad ba mu ne ko mën na nekk waaye ndax sa ñaari waajur ñu ngi dund dégg mu ne ko ndax sa ñaari waajur mu ngi mu ngi dund ndax euh, soxna walla xale bi ne ko waaw sama ñaari waajur ñu ngi dund mu ne dellul si ñoom nga nekk ak ñoom rafetal jëmale ci ñoom mu ne ko lu tax mu ne ko nag sa jihaat si ñoom la gën a amee doole ka fii ay njàngale la moo tax bari na looy def yaakaar ne mom nga wara def fekke ne waroo def lolou la nga wara def yang ko baye sa keur ñëw di def la warta def moo tax da fay am solo ah wajuri nañ leen wek kep ku ci wegul sa waajur billahi alladhi la ilaha illa huwa tardement dana dana la dana la dana la dab tak tanak la ngay defal keneen da ko ko wara defal dafa am fu mu njëkkee mooy si waajur yi rek ba léegi waaw nit lu mu la maanaam demal si sëriñ bu mu mën a doon nag tariqa bi sax dañ la koy wax tariqa du Cheikh tariqa Cheikh naa Cheikh Ahmad Tidiane Chérif Fatimi bokk na yi sax boo siy dugg say waajur dañoo war a yëg da leen ko war a wax ndax dañ si am solo ndax seex dafa fonk ñaari waajuram kon nag fonk gën fonk ñaari waajuram taxna bu-bu kep kuy talibé nak ñaari sa ñaari wayju da ngeen wara yek ya, ya, wek yekati len ndax nak sa bundu tarbiya ñom la motax fo foo dem ci kaw suuf ak seen lu mën doon day ndik manam taman bopam daf na la nak am nga ñaari wayjur ba pare lu may defal soog ko defal kon nañu wek wayjur yi nañu len nañu bax jëmele si ñom ndax lolu mo ñu jariñ leneen lu dul lolu jariñ di wax ne rek suñu teme ngi noonu mu dellu woon ci lan ci ñaari waajur yi ñu àndoon kaak waa BTV ci seen émission fii Al Mizan ah, ni ñu koy waxee rek Facebook YouTube Instagram yëpp boo fa demee da nga ko fekk ku ci am tamit loolu laaj rek mën nga ko dugal ci commentaire yi allah ci kattanu yàlla lu ñu si mën a tontu rek incha allah bu yegsee dañ ko tontu di leen wax ne rek wa ma zalika bi aziz wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu